Oh. être doté d'assises pour 25 places, mais ce qui est déterminant, c'est qu'en plus de ces assises, on va avoir au-dessus de ces assises des écrans, LED, paramétrables. Comme c'est un stade dédié à l'équipe nationale l'équipe nationale chaque donc au niveau de ces écrans, il sera toujours possible de mettre l'image du joueur et le nom. Et, voilà. Et, du, fait, du, du branding, du fait du branding, c'est pas, pas, le branding proprement dit, mais du fait de customiser le stade couleurs de nationaux. Ici, au milieu, c'est un lion comme ça, en rouge, carrément, qui est sur le logo de la fédération qui va faire office de... tey fi sénégalais fier nga nekk sénégalais mais fier nga it am président de la république boo xamante ne lépp lu gën ci àdduna bi daf ko yéene Sénégal ñuy gërëm bu baax nag le directeur général ba ak bi mu àndal yëpp ci taxawaay bi nga xamante ne am nañu ko ànd ci ak directeur des infrastructures ministère des sports ñuy liggéey pour accompagner li nga xamante mooy entreprise bi ba tey ñu yegg si fii tey ku fi ñëw xam ne la nee 22 février jot caabi yi war nga ko gëm liggéey bi avancé na li ëpp solo def nañ ko egg nañ ci quatre-vingt pour cent wala lu ko ëpp ci wàllu liggéey kon tey mën nañoo ne ci gazon dinañu am lu ñu mës am mooy gazon bu jaxasoog gazon artificiel ak gazon naturel loolu nga xamante ne mooy li gën a baax ci àdduna waaye li ñuy magnifier mooy lii nga xamante ne mooy stade bi architecte principal bi mooy le président Macky parce que moom moo décidé ne du am piste d'athlétisme dañuy yóbbu bi ci biti tey ku taxaw fii amul lenn dooy envier ci benn réew bu mel nii kon réew dëgg-dëgg boo koy dénk koy dénk ku am ambition pour réew te loolu la président Macky Sall wone fii moo tax ñu ngi koy ci monde sportif yëpp di ko gërëm waaye boo xoolee salle yi fi nekk capacité bi mu am VIP salle de presse ñu yéen nga xamante ni coono ngeen doon daj pour dem ci stade yi di taxaw di wër ay image di wër ay information ñu jël condition yi gën ci aduna bi defal leen ko ci stade du Sénégal lolu ñu xam li ngeen di daj bëgg ci té japp nañu né ñëpp dinañ ci japp pour que effectivement Sénégal di gëna jëm kanam ci walu tagat yaram leneen li ñu mëna waxit mom moy tay bo ñëwee ci vestiaire yi wala nga ñëw ci pap bu ba job ne c'est du lourd mom mo nekk fi du ay ñab ñabal du ay affaire yo xamanteni mas nañu ko gis kon muy yeen muy man ñi nga xamanteni wër nañu rew mi wër aduna bi gis stade yi am war nañu mëna yëkëti suñu loxo xamne liñu am wër bo wëree Afrique sax do ko gis Augustin Senghor ak ni mom la doon xol léegi ci xar kanam bi ñu ci vestiaire yi bi dugg ci bir stade bi bo ko di nga xamné ki amna am lu ne ci xolam mu bëgg ko lol te gis nako kon japp nañu né fii ñu le 22 février nous parlons de li ñuy def war nañoo anticiper la fédération ba nga que CAF CAF wala FIFA dina affecté li nga xamante au stade mois de mars le Sénégal du football football ko fi.